waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli subhaanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alimul hakim wa salli llahuma ala xayri xalqillahi wal mursalin habli bi xubbi muhammadin ya rabbana lam naxsha min hawlin bi xubbi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi nu bokkal yàlla ñu dellu santat yàlla julli ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wa ñaan yàlla ñaan yàlla sunu cofeel ci moom ci njool màkk alayhi salaam yàlla na borom bi téel nu ko sàmmal nu ko waaye saxal ko sunu xol mu sax ca dàq te cee jóge abadan ba ëllëg ñu tum tum tum dugg aljana yàlla nañu sax ci doon jullit waaye di doon jaamu yàlla ya nga xam ni yàlla dafay nangu seen njaam tey jéggal seeni seeni ñawteef mbokk yi xam ngeen bu nu toogaan fii ci seen télévision bu mag bii di KN ak seen soppe seen xarit Mouhamed Dabakh Cissokho li njëkk ci sunu nuyoo mooy nuyu kilifay diine yi buñ nee kilifay diine yi buñ nee sëñ Babacar Sy Mouhamadoul Mansour nuyu ko waaye nuyu njaboot moom Cheikhul Hadji Malick gi yëpp ziyaar leen nuyu bu baax sëriñ Mountakhal Bachir moom tamit kazalika ak mboolem njaboot maam Cheikhil Khadim waaye nuyu bu baax itam waa Léona waa Canaba waa Medina Baye tabarakallahu mboolem fu kër diina nekk waa Laayeen ah, waa Njaasaan waa Daaka ah, foo mboolem rek Omariyeen tabarakallahu ñu nuyu leen ziyaare leen kenn ku ci nekk ka ca xalifa ba nekk ca bopp ba nuyu nañ ko jël nuyoo tekk teg ca loxo mu jotaloo na ko mboolem jabootam waaye ci kaw loolu ñu nuyu sunu bunt ci diine ji nuyu sunu bunt ci tariqa bi nuyu sunu bunt ci lépp àddina muy Cheikh Ibrahima Ndiaye Khalil mu yaa faama moom alxaaji Soose Ndiaye ñu nuyu ko ziar ko waaye nuyu njabooti moom alxaaji Soose Ndiaye gi yëpp ziar leen nuyu xalifa ba bàyyi alxaaji Njaga Ndiaye moom it mu yóbbaale mboolem njabooti moom alxaaji Soose ñu nuyu leen ziar leen bu baax a baax nuyu sama baay Amath Soose Ndiaye moom it tabarakallahu nuyu ko ziar ko ñaanal ko yàlla Euh, yàlla na yàlla bàyyi sunu kanam mook mboolem ku bokk ak njabootam moom ku mu bokk la moom Alxaaji Soose Njaay yàlla nuyu yàlla euh, sañ na ko yàlla na ko yàlla def insha allahu taala noonu tabarakallahu ñu nuyu waajur yi bu baax ziyaare leen ñaan leen yàlla nuyu soxna yi tamit kazalika euh, ñaan yàlla def leen jàmm mbokk yi sunu waxtaanu tey dafay tënku ci actualité Euh, dañuy bëgg aljama bu jot ñu ñëw ak ci waxtaanu jamono boo xam ne daañu ko jëlee ci yonent Yàlla Muhammad mu indil ñu ko ci daaru duniya bàyyee nu ko ñu mën cee tàggatu nag mën cee tàggatu di ca defaru moo tax yonent Yàlla Muhammad alayhi salaam toog nag saxaaba yi wax leen sa yëxati zamaanu ala ummati yuhibbuna xamsun wa yansawna xamsun ci am Muhammad alayhi salaam wax na ni jamono dana ñëw bés dana ñëw mënees naa nekk ngoon mënees naa nekk ëllëg waaye mënees naa nekk gannaaw ëllëg waaye mënees naa nekk téeméer ca kanam jamono dana ñëw yaa Muhammad bu jamono ñëwee lan nga ñuy bëgg wax ni moo cay xew mu ne sama xeet bii nga xam ne yàllaa leen newoon yaamaruuna bil maarufi wa yanhawna anil munkari te mooy yéen xeetu sayyidina Muhammad alayhi salaam yéen a gën ci mboolem man Muhammad ni ma gënee ci mboolem mbindeef ñi xeet woowu woowu la la la Moustapha alayhi salaam yun cal Muhammad alayhi salaam wax ni jamono dana ñëw daañu jël juróom jëndee ko ci juróom. daañu jël juróom boo wala xeet dana ñëw jamono ci kanam daañu jël juróomi yëf jëndee ko ci juróomi yëf mu mel ni dañoo jël question bi posé waat ko njool màkk alayhi salaam nekk waa yow yaa muhammad alayhi salaam juróom ya ñuy jëndee juróom waaye yooyu yàlla déglu leen maa wax leen ko yéen waa Kër Ndanane TV mu ne yuhibbuna dunya wa yamsawna al aaxir benn ngoog njool màkka wax ni daañu jëndee àddina daañu jël àddina jëndee ko yowmal qiyaam jëndee ko ëllëg daañu jël àddina jëndee ko ëllëg te mooy aaxir lan mooy loolu daañu jël mbooleem cafkay àddina doxee ko daañu jël mbooleem cafkay àddina dundee ko daañu jël mbooleem mbégtey àddina jëfandikoo ko topp bakkan ah topp sa naf su bakkan mu lay jëmale ca kasaraan mbugal sa yoon topp sa jeunesse mu lay jëmale ci lu la neex nga nekk ca la la neex te damay wax ni at woo mën a am at woo mën a am boo taxawee ci sëg yii ci armeer yii daa gis ko am at yi nga am juddu weer wi nga juddu bés bi nga juddu même at wa même weer wa même bés wa tëdd nelaw di la moo tax ñenaan toll ca def ko weesu ko ba ko ëpp naa wax mbokk yi toll ko def ko weesu ko ba ko man yi ëpp naa wax nanu ko bàyyee di wax nanu toll ndaw yàlla ndaw la soxla ci jaamu yàlla soxlaalul mag mu dem ba tële ba màggat ba jeexal di taxawaalu ak di njëkkante nodd ak julli ca jàkka ja yàlla soxlawul kooka yàlla ka mu soxla mooy yow mi dese kàttan yow mi amee kàttan mën ko deel jox jëlal sa ndaw jox ko yàlla ca teel loolu mooy mën a tax sa àddina doo ko jëndeek alaaxira sa maam ne woon la mada dëhër wal ayaamu wal zanbu xaasilun wa saaxa xurabal bayni mu ne la jamono ngi wéy di dem jamono ngi wéy di dem baakaar ya nag mi ngi fene xus tafee jóge tafee jóge waaw mi ngi fene xus tafee jóge te yuuxu na ana ko yuuxu baaxooñ wu weex wa di la di la ak di la laxasaayul ngir xamal na ni dee ma ngay ñëw ndax ala kullu mawludin wa in taala umruhu sayatuhu daai hurkatan wa yajib waaye at yoo mën a am ci àddina dundal ñeent fukki téeméeri at yóbbu la la ca biir bàmmeel mbokk yi kon bul jël sa àddina bii di jeex àdduna bii di jeex jëndee ko alaxira bi dul jeex ndax àdduna day jeex kon bul ko jëndee bés ba dul jeex te mooy lan bés bu la yàlla teralee ba yóbbu aljana aljana du jeex kon jaamal ki dul jeex ngir mu dëkkal la fi dul jeex àdduna day jeex bul ko jël jëndee ko sa àllaaxira mbokk yi moo tax mu ne zaman ba dana ñëw ca kanam daa nga gis ku jëndee àddina àllaaxira mooy lan topp foomi topp seemi ba faa ci ne dee baa ci topp topp seemi rek te ko bàyyi topp seemi rek te koo bàyyi fu caaxaan am yaa nga fa fu caaxaan am yaa nga fa topp boîte yi topp baar yi topp caaxaan gi topp musiba gi topp mooy gi topp yooya fu yow daal fu caaxaan am yaa nga fa ba fàtte ni seey daal dee moo ca topp seey ba dee ba rek ba tax man ja waa ji romb ca yoof romb fi ñuy wax yënguleen leen ah, boobu ñu tuddee yëngu leen mu romb ko ne fii fan la ñu ne ko fii de góor gi mooy yëngu leen mu ne tekk ñu avancé tuuti mu gis armeer yi ne waa fii fan la ñu nekk fii de mooy armeer yi mu ñu leen tegtalu na fee yëngu leen moo fa am fii nemm leen moo fa am nemm leen fee moom yëngu leen moo am waaye fii ku fi dugg da ne nemm fee ku fi dugg da nga yëngu waaye fii ku fi dugg ne nemm yëngu nemm leen mbokk yi àdduna dafay jeex fa yaa ayuhal baani محل ضيافة ألم تعلمن أن الجلا قريب àdduna këru gan la te gan du yàgg mukk ba mu nekk gan ga déedéet gan dafay toxu dell fa mu jóge woon àdduna ngoo këru gan la waaye boo fi ñëwee jaamul sa boroom ci at yu fan yu néew yi nga fi am jaamu ko sa boroom ngir ëllëg balay balay yebal malakal mawti muy jël sa rox fekk la nga am sa kont bàmmeel loo mën liggéeyal sa borom ëllëg mu mën cee bég mën laa tàbbal mën laa bégal mën laa texeel sa maam ne la nag wala tarkanan xib bii li daari baqaa yi fa taxsara fii daarey ni duuna miraa yi waaw mu ne la bul jeng bul jeng bul jeng jëm ci àddina bii di jeex bul jeng jëm ci àddina bii di jeex ah fa na nga yëg nii boo jengee jëm ci àddina bii di jeex di nga perte fii perte fële fa taxsara fi daarayni duuna miray boo jengee jëm ci jamono bii di jeex dangay ngay perte jamono perte yowmal qiyaama perte àlaxira da ngay perte àddina perte àlaxira man ci yàlla musal yàlla ci yàlla musal rukunuka li dunya xururu xaflatin wala tarkanan illa li daari baqaa'i jàng jëm ci àddina àddina lu fi am dara amu fi dara amul ci àddina kon bul jàng jëm bu yow daal bu demee bay jàng jàngal jën ci li neex yàlla te mooy leen jaama ko te ba mu waree jaamu ko te ba nga koy mën jaamu ko ca ba ngay am kattan jox ko sa bopp te ba ngay am kattan waaye fii léegi ndaw bu fi jaamu yàlla ñu ne xool ko day mag mag lu oustaz si soxo sol garab boobu mu romb la ñu ne ko xool ko kii moo ne bi mu juddoo yàggul de waaye xool ko ni mu googee di mag mag lu xale boo xale bu góor ba bu solee peew mu ne ñàpp ci yaram wi ñu ne ko lu mu bëggee la bon bu solee garab boobu ñu ne day mag mag lu kon nu ñuy def te ñu bañ sol yére bokk di dox noonu ba xam bokk yi ci benn buñ ci taxawee rek ci yuqi bëri duniyaa waaye yan sawnal aaxir buñ ko taxawee mën nañ naa mën naa jeexal émission bi te la ñuy bëgg wax duñ ko wax nañ jàll mu ne ba ci ba ko ñaareel mooy wa yuxibuuna al maala wa yansawna daañu bëgg alal njool ma koy wax de mu ne jamono dina ñëw daañu bëgg alal bëgg ko lool nuñ ko mën a amee baax na nuñ ko mën a amee baax na lekk alalu jërim sàcc ah ak yu ni luubal ak yu moom daal alal ja nuñ ko mën a amee baax na moom daal ñu am rek nañu am sunu poche yi daal walla sunu compte yi daal nay am xaalis na am chiffre bu baax ca kanam ak ay zéro yu bari nu mu ñëwee baax na waaye nag bul fàttali bés te nu ñëw ñu réglé la ko ñu réglé ko maam Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh daan na wax ni ëllëg yawmal qiyaama borom millions yi borom deux mille cinq cent yi leen dugg njëkk dugg aljana ñu ne ku lu tax loola moo ñu ndax yàlla fifteen lay compter par fifteen dërëm bii yow Fat Bintou Ba foo ko jëlee ak fan nga ko reesalee da wax de te yawmal qiyaama amul amul kësëb de amul fen de. loo mës lekk ci alal daa wax fan nga ko jëlee ak fan nga ko reesalee moo tax bés may waxtaan ci benn daje di waxtaan di wax ni alal ju ñu yàq ci grand théâtre ci lu neexul yàlla waa nag jaru ko benn mag dama doom bàyyi leen ndax alal ju lewut fa muy jëm du fa mën a lew alal ju lewut moom fa muy jëm du mën a lew caax alal joo jëlee ci caaxaan alal joo jëlee ci fenn alal joo jëlee ci lekk alalu jirim alal joo jëlee ci luubal alalu jàmbur yu ni mel doo ko mën a dugal mukk fa lew fokkee mën a dugal mooy fa yàlla ndax foofu mooy place am mbokk alal ku koy lijjanti dana la lajal te bu la lajalee dootoo mën a lijjantiku léegi koo wax mu ni damay business alal alal dama koy lijjanti noo ko amee baax na di teg dil di dóor di tabarakallahu nañ ko bàyyi ndax auditeur sa bopp balaa bés yàlla jëla audit moo tax bul bul gis nit mu yor ko mu am kër gu jekk lool am oto yu rafet lool am ay compte bancaire am ay bien yu bari nga ñee ko ca alal ja wóorul leeru la ba xam alal ja leew na bàyyi ko xel waaye léegi alal la ñuy jaamu kënit alal la ñuy jaamu ko nit moom daal yàqamte nañ mu am alal rek ñu di ko sibooru ah di ko di ko ko taggali maamam di ko wayal ak di ko di ko di ko tabarkallaahu na ko wolof di waxee topp ko rek te koo bàyyi nañu ko bàyyi xamoo fa mu jëlee alal ja xamu ba xam lew nam lewul donte loolu beneen domaine la waaye bul gis nit ñee ko ca alal ja mu am déedéet wax waxew ma kiñaan déedéet waxew ma kiñaan waxew ma coxor mais dama ni bul gis nit ki rek xamoo alal ga fa mu alaloo nga ñeeg ko ci alal ja mu am déedéet na mu def ba am na mu def ba am alal donte ne lewut yow boo ko defee ci lu neex yàlla am ju lew te dina dund dina barkeel kon fa may bëgg a waxee mooy njool màkk alayhi salaam ne na jamono dina ñëw sama jamono nit ñi daañu bëgg alal lool ba nuñ ko mën a amee baax na ba fàtte na bés dana ñëw yàlla àtte la alal ja nan nga ko amee benn par benn ba ba alal ji di jeex ñu bàyyi ko xel mbokk yi ñu bàyyi ko xel mbokk yi ba ko ñetteel moo yuqibuuna al maxluuq wa yansawna al xaaliq ahan kay ñu ngi koy dund de njool màkk alayhi salaam wax na ni jamono dana ñëw daañu jaamu nit ki jël cëru yàlla jox ko nit ki ba fàtte ne yàlla am na allahu akbar ak fay am ak fay am jël cëru nit jël cëru yàlla jox ko sab sëriñ jël cëru yàlla jox ko sab sëriñ sab sëriñ googee tamit am gàttu xel gu toll ni du mën wax ni cër bi nga ma jox du sama cër cëru yàlla wala nga nekk ci service su nit ki ba fàtte yàlla ziara njarnde le 10 janvier la tey ci ajuma gii la le di novembre tey ci ajuma gii mooy ziaru njarnde njarnde mooy bango moom Cheikh Seydi Hadji Malick wax nañ ci histoire nii Seydi Hadji Malick dafa dafa am bés muy muy ñuy bay waxtu julli jot mu ne bàyyi leen bay gi yemale leen ko fii ñu dem julli ji te ñëw maam xaaj Malik wax leen ko wal leen ginnaaw dem julli ji ñëwaat fekkaat gaa yi ñuy bay ba tey mu ne la waa yéen xanaa waxuma leen woon waxtu yàlla wi ñëw na nañ ko fi bàyyi na nañ bàyyi li ñuy def dem jox yàlla mu moom ñu ne ko deet si Malik nañ doon xaar yegg yeggali lii rek doora ma a dem julli ji lu ma leen wax wittil leen loola yàq lakkal leen ma ko soxlaatuma ko ndax bokkutul ci la ma moom ndax lan bàyyi ngeen yàlla cëram jox ma cër bi man te mooy lan waxtu wi ngeen bay bokkul ci lu neex yàlla man ngeen seet li li ma neex man bàyyi li neex yàlla kon lii ngeen bayoon ngir man ma bét ca wala ngir man ma jël ko gedd naa ko ngeen baal ma ci baatu gedd naa ko waaye soxlaatuma ko laqal leen ma ko soxlaa soxlaatuma loola allahu akbar allahu akbar ñun nag dañuy nekk ci service nit ñi ba fàtte cëru yàlla dañu nekk ci lu neex sunu sëriñ sii ba fàtte cëru yàlla waaye boo ci dajee ku mel ni Cheikh Ibrahima Ndiaye di nga xam ni sëriñ bari na te bokkul sëriñ am na këriñ am na fëriñ am na yal na ci musal ci këriñ ak fëriñ mbokk yi cër bi yàlla moom man ko koy jox yàlla ëpp naa bokkaale sëriñ baax na de sëriñ baax na lool waaye sëriñ bu la mënta teg ci yoonu yàlla sëriñ bu mën mënta tane ci xam sëriñ bu la mënta tane ci yàlla sëriñ bu la mënta wanaleeg sa boroom sëriñ bu la mënta tàqaleeg seytaan boobu la sëriñ tege ko ne la yaa ko tane wala boog tanewu la wala boog tanen tewu leen waaye bu la yàlla boole ku mel ne xalil xalil ibrahim da nga xam ni sëriñ am na am na ñu yàlla baaxal ba ñu mën a kuñ ku ñu mën a jàpp jubal la teg la ci yoonu yàlla wu mokk ne jaww wuti boromam subhanahu wa mbokk yi ba ko ñeenteel mooy yuqibuuna alxusuur wa yansawna alxubuur daañu bëgg ay air plus nangam baax na baax na kay air plus nangam am fii kër am ko tëngéej am ko dakaar am ko Thiès am ko Fatick am ko Waalo am ko Jolof baax na waaye doo doo dëkk ci yëpp déedéet doo dëkk ci yëpp ci benn ngay mën a dëkk te kër ga na mën a toll ak na nekk ya mën a bari def ko R plus cent quarante cinq waaye benn nekk nga cay fanaan benn lal nga cay tëdd benn nekk nga cay fanaan benn lal nga ci tëdd moo tax ñu dégg ci histoire Alexandrie maam Sédar Malick moo ko nettali buur la woon bu bari alal bu bari doole bu amoon nguur lool bu nguuram yaatu woon lool bi mu demee ba mu xam ne faatu dee moo ko dese dee moo ko dese dafa woo njabootam gépp ak docteur ñi ko doon suivre yépp mu ñu leen kaay leen ba ñu ñëw mu ñu leen su ma deewee docteur yi docteur yi nañu ma sàng nañu ma sang daal nañu ma sang docteur yi mu doon traité nañu ma sang ñu ne ko waa baax na ñaareel ba mu ne bu ngeen may suuli bu ngeen may suuli sama alal ji ma amoon sama alal ji ma amoon dóor leen ko ci kaw ci ko ci yoon wi bu mu tëpp ba bàmmeel ñu ne ko waa baax na mu ne ba ko ñetteel mooy sama loxo yi bu ko kenn takk bàyyi leen ko mu wadd ñu ne ñett yi nga wax nii lu tax nga wax ko mu ne waa ndax li tax ma wax nii su ma faatoo docteur yi ma daan yi ma doon traité di ma suivre nañu ma sang mooy dama leen wan ni mooy dama leen wan ni bu docteur bu ruux nekkoon ci loxol docteur kon kenn du faatu wala boog di nga gis koo xam ni docteur bi da koy faj sonn ci moom piqûre ko mu dee waaye dama leen bëgg xamal ni wér wala ruux nawul ci loxol docteur moo tax ma bëgg ngeen gis nii ñii ma doon ñii ma doon traité ngir bañ ma dee tey dee naa ñoo may sang benn ngi noonu te ke wax li yéeféer la ñaareel ba mooy sama faatoo sama loxo yi bu ngeen may suuli ba teg ma ci kaw a jaag ba di ma yóbbu sama loxo yi bàyyi leen ko may balancé ci suuf mu wadd ñu nekk lu tax mu ne ndax ñu xam ni ka doon flotté baaraamam naan nii di joxooj aajo faju te loxom yaa ngi nii mënul dara mënul joxe ndigal mënul fëttas ba aajo de faju dégg loolu ñu ne quoi ñetteel ba moo ne lu tax ma bëgg sama alal yi ngeen joor ko ci kaw ci ci yoon wi balaa ngeen may suul mooy lim fi am nañ ko seddoo balaa ñu bi dugal ci bàmmeel allahu akbar ci ngay gisee ni xoolal jamono tey xoolal jamono tey dangay gis ni borom alal yi ku ci dee bàyyi nga problème bu rëy ci sa kër ca miraas baag kay doon nag kay nangam kay nangam kay nangam moo tax ku yàlla nar a baaxal balay dee day réglé këram ba mu réglé wu soog a dee nga xam ne bu dee doom benn jafe-jafe ndeysaan sama yaay ju tedd ji yaa Fatim kat da baax noonu la def la njëkk may faatu alalam ji yépp la mu amoon ci yéreeg takkaay bu baax ak yépp maye na ko la ma amoon ci alal ak yépp may na ko sama sama baay ju baax ja bay aadama mbóoj tabarakallahu moom it li njëkk muy faatu la ma alal la ma amoon ci alal ci mbubb yu baax ak yépp joxe na ko gis ngeen yàlla dafa leen baaxal moo tax ñu xam ne comme dañuy faatu te bëgguñu jafe-jafe am seen gannaaw ñu joxe lépp balaa ñuy dem moo tax air plus nangam yi baax na waaye dañ bay xel ne bàmmeel la ñuy mujjee boo defee loolu sam xel doo mësa a dëkkee àddina di tabax rek ci teg ba ko juróomeel ma daanelee ko foofu mooy wa yuqibuna al marsiya wa yansawna ba talba tawba mooy lan mooy jamono ngi ñëw daañu bëgg mooy yàlla lool mooy yàlla nag buñ ko waxee du sekk ak jigéen kese waaye mboolem lu neexut yàlla mooy yàlla la ba pare fàttee tuub fàttee tuub waxuma yéexee tuub de waaye fàttee tuub ndax ku yéexee tuub rek yéexee tuub dong rek musiba la ak ñawteef waxuma la ak fàttee tuub teel wax ci alxuraan ni tuubu yaa ayyuha allazina amanu yéen ñi gëm yàlla ñu ne ko ñoo ngi nii mu ni tuubu ilallahi tawbatan nasuqa te tawbatan nasuq mooy xal mi nga fekk ci ëtt mi sololoo daal nga teg ci sa tànk bu la lakkee na ngay sii ci yuuxu teg gi ko mu leer la ne doo ko ci tegaat tuuba ngi noonu booy tuub mel ni kooku mbokk yi kon nañu teel di tuub suñu ay ñaawteef bañ di ko fàtte ngir yàlla di nu jéggal suñu ay baakaar yàlla na yàlla def ñu dégg ak li ñu baax la yàlla na ko yàlla fulal li ñu bon yàlla ñu ko yàlla suturaal hëble ilaahiya tawbatan nasuxat wastu xataayaay rabba ya astaari yàlla ñu yàlla suturaal gën gi sutura yàlla ñu yàlla suturaal gën gi sutura te tawaffani musliman fi raxiti abraari anta waliyu fi dunya wa darataha tawaffani musliman fi raxiti abraari yow daal yàlla eh, yaa yaa ñu méngoo fi dunya wal axira yaa ñu méngoo ci àddina yaa ñu méngoo ci wujjëm wa di alaxira boo ñu reyee boo ñu rey tamit yàlla nga ñu rey ci lu la neex te ba ñu reyee ba noppi yàlla nga ñu boole gaa yu baax ya ci aljana insha allahu taala yàlla mën na ko sañ na ko yàlla def aqulu qawli haza wa astaghfirullaha li wa lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu